ami cher internet univers info TV day nekkaan te contentement comme ni ñu amee habitude di ko def euh, di leen euh, ñaanal jàmm ju bare bari di ko sàkku ci yéen tey nag bu ngeen ñu gisee ak ni ñu changé nga xam ni am na nouveauté euh, kenn waralu ko nag ku dul Lipson ah chéri Fatima nga xam ne tey moom la fekk si fii ci xewam muy xew xew taawam ci noonu nag lañ koy ñëwee waa univers info TV fas yéene waxtaan ak moom Fatima noo def. maa ngi nekk sa jour boppam sa sa premier doom lan nga Euh, mbégte bonheur loolu laay andee nga woote tamit say xarit daal la def lu otes ñëw waaw euh, déjà je suis un peu mais mm-hmm. <laughs> je suis obligée ma wax parce que mm-hmm. je suis vraiment contente commencé waat leen je suis pas prête <laughs> ay eh, libaas doo woo Amina mu ñëw vingt heures dix neuf heures léegi mu jot boo amoon lay wax si jëkkër ak nim la siggalee nim la sagalee la nga koy wax tey. dama koy sant di ko gërëm rek Lipson tout le temps dama koy sant ko gërëm si laa dëkk. Hmm. appel bi tamit je pense que c' la même chose quand nekk na góor boo xamante ne vraiment. parce que jigéen lu mu gën a bëgg lu mu gën a soxla si àddunaam euh, amour attention temps bi te na ma ko ba mu mat sëkk manqué ma hmm. dafa saturé si liggéeyam sax mais sama temps daf ma koy jox ba mu mat sëkk. Hmm. il m'a mis bien maa ngi si sama jàmm je manque de rien avec lui. voilà bu dee amour affection ak lépp lu ma bëgg pour si dox. mais des fois des appels du la déranger. ça me dérange pas parce que compréhension rek moo fi nekk parce que dama ñëw fekk comme si liggéey si appel yi. ak composition bi nga xam ne peut ay jigéen la plupart jigéen ñi la defar ay photos. waaw mais dafa am lu ma won moo tax j'ai confiance en lui. Mhm. mën naa ko bàyyi mu dem liggéey ba 6 heures 5 heures du matin ma tëdd fii di ko xaar sama xel day sant di leen gërëm mhm. ko gërëm mhm. parce que ni ma mel ginnaaw yàlla moom la mhm. ñëpp kontaan naa sa sa euh, jour ngénte nekk sa ngénte taaw ana lan nga yëg ah euh, je suis vraiment contente dama contente trop parce que sama àdduna musuma woon en fait musuma woon imaginer que waa en 2024 je serai maman sama taaw ñëw ma koy ngénte aussi gis naa ñëpp ñëpp wuy si nañ ma donc ça fait vraiment plaisir mm-hmm. voilà et maman aussi c'est vraiment benn affaire bi nga xamante ne c'est c'est c'est mm-hmm. vraiment dafa dafa neex mm-hmm. dafa neex trop macha sa xarit yi dara la nag def hôtesse yu nice surtout ma gis ñëpp sama xarit yi ñuy jóge dëkk ba dëkk vraiment ça fait plaisir ñu ñëw assisté ma tey gii nga nekk ak Lipson macha allah il est connu ñëpp xam nañ ko à travers l' internet est ce tey nekk na góor boo xam ne xëy na nekkal à travers euh, turam fi mu toll non pas du tout mm-hmm. góor bu il est exceptionnel mm-hmm. vraiment loolu laa am lu may wax ci sama jëkkër nekk nit koo xamante ne compréhensif dafa compréhensif il est trop compréhensif lii mm-hmm. musu sama grossesse bi lu mu métti métti métti musuma seetaan benn yoon bien vrai que il est trop occupé avec le travail et tout ça mais il est tout le temps là mm-hmm. avec moi à côté de moi di ma assister sama début grossesse ba sama ba fin grossesse. Mhm. Mhm. kon ñuy wax euh, tendance que ni genre boo amee jëkkër bu siiw du du du jël soin ak yow maanaam du ko may temps est-ce que Lipson bokk na ci jëkkër. non non bokk mhm. sama temps daf ma koy jox bu mu jeex tàkk. depuis ce début suba ba tamit ñu ngi gis nga def sañ-sañ maanaam sagal na la sigil. sagal na ma sigil na ma. Euh, rendre na ma heureuse nekk naa jigéen ba nga xamante ne je suis très heureuse vraiment mhm. namu ma dara daal mhm. maa ngi sant yàlla bu baax te maa ngi koy sant di ko gërëm mhm. waaw macha allah mais nag sa mariage ak say sina xam nga euh, Fatima nekk na nit koo xam ni xaw nañ ko ràññee tout si si réseau yi ñu gisoon sa mariage bi mu amee tu euh, comme jumelle avec Ndeya Beauté instant bi ci baptême bi ñu gis absence am ba du dara juste que Léa c'est une femme mariée mu ngi ci ay business am man aussi je suis une femme mariée euh, dama nekkoon en état coup euh, maa ngi woon déjà man bi ma nekkee en état sax maa ngi woon sama kër parents yi moom aussi ngi fii Dakar man maa ngi woon Thiès donc ñu ngi doon déggante voilà mais ça va sant yàlla elle est là elle bien c'est une sœur. mais tey jii nii lan moo tax gisuñu ko ci ci ci sa matinal bi ndax bi ñu ñëw gis nañ say xarit yi ñuy ànd ak yow xam nga def ambiance lan moo tax bokkul hôtesse wala soit ñëwul dara la comme comme la fois passée. <laughs> non mais c'est rien peut-être qu'elle est un peu occupée si mm-hmm. relation moom la vous ay jumelles. non on n'est pas des jumelles juste que suñu jëkkër yi ñooy ay xarit. après ma ñëw sëy si fii ma ñëw fekk ko fii donc après les gens ils disent que ouais Ndeya li ngeen a nuroo li ngeen a nuroo mais bon c' est juste une euh, une soeur parce que jëkkëram ak sama jëkkër ay xarit lañ. fan ngeen ci sama mariage lañ mais da ngeen da ngeen am flow da ngeen a nuroo. ah peut la loolu yàlla da def. mu ngi denc indi ko indi ko. wax ko bu ma leen daal lii la ko dagg. da koy dagg kay nit ñi dañuy koy saboté léegi. daal de waaw wax nga dëgg la. parce que seere woon naa si madame Diop ay bébé. bi si kóortu ma mu jooy. jërëjëf dafa neex kii. non non non. baax na andi. jox ko kay andi andi andi. baax na baax na. tey boo tey boo amoon looy wax si jëkkër ak nim la siggilee nim la sagalee la nga koy wax tey. dama koy sant di ko gërëm rek Lipson tout le temps dama koy sant ko gërëm ci laa def appel bi tamit je pense que c'était la même chose quand tu m'as na góor boo xamante ne vraiment. parce que jigéen lu mu gën a bëgg lu mu gën a soxla ci àddunaam euh, amour attention temps bi te jox na ma ko ba mu mat sëkk manqué ma ko mm-hmm. dafa saturé ci liggéeyam sax mais sama temps daf ma koy jox ba mu mat mm-hmm. il m'a mis bien maa ngi ci sama jàmm je manque de rien avec lui voilà bu dee amour affection ak lépp lu ma bëgg mu ci dox mais des fois les appels du la déranger ça me dérange pas parce que compréhension rek moo fi nekk parce que dama ñëw fekk ko mu si liggéey si appel yi. ak composition bi nga xam ne dafa ay jigéen la plupart jigéen ñi la defal ay photo waaw mais dafa am lu ma woon moo tax j'ai confiance en lui. Mm-hmm. mën naa ko bàyyi mu dem liggéey ba 6 heures 5 heures du matin ma tëdd fii di ko xaar sama xel day dal parce que dafa am lu ma woon. am na waaw ak lan ngay tàggatoo. Mm, maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom je suis vraiment contente sant di ko gërëm parce que ni ma mel tey moom la ginnaaw yàlla moom la waaw maa ngi leen di remercier aussi yéen ñëpp kontaan naa merci beaucoup